bi ausebilahi setaan rajim bisimilah rahmaan rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu nuyu nañ leen ziar leen bégg leen jox leen seen waay euh, bu ngeen gisee jataay bi ngeen xam ne ñu ngi Fimela laa lan moo ñu fi andi sunu papa Ibou Sène lañ seet si ak kan Doudou xale bi xew ci jamono mais bala ñu yegg ci Doudou il ñu waxtaan ak sunu papa Ibou ba pare ci li nga xam ne mooy làmb waaw que buñ ne Ibou Sène ne secteur laa ak li ko wër ak ndox mi ak Dakar euh, il faut ñu waxtaan ak moom mu xamal ñu lan mooy làmb démb ak lan mooy làmb te ak géwél buy dem ci làmb nan la koy préparé papa nuyu nañ la. Euh, maaleykum salaam maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di leen di ziar di leen di jox seen wàccuwaay parce que lii nii dafa nekk loo xamante nii ñëpp a koy seetaan ñëpp a koy déglu kon war naa nuyu waa Sénégal euh, ziare leen jox leen seen wàccuwaay. waaw li nga wax noonu aussi dëgg la làmb moom vraiment instant yi nekk nii làmb xaw na doy waar parce que làmb bu njekk ak làmb léegi du benn. waaw du benn. waaw loolu itam ñu war cee tënk euh, point yu bari. Mhm. mais bala ñuy xuus ci li nga xam ne mooy waxtaan bi. Mhm. te bu ñu laajoon Ibou seen mooy kan Ibou seen bu Fimela parce que bëri na ñoo xam ne ñu ngi dégg Ibou seen mais xamuñu exact kan mooy Ibou Sène Fimela. waaw man nag yaakaar naa ñi ma xamul Sénégal bariwuñ parce que vraiment li ma dund si réew mi moom man yaakaaruma daal ne am na ñuy dund Sénégal te xamuñu moom moom wax dëgg yàlla. mais nouvelle génération bi la waaw nouvelle génération bi waaw euh, changement moo si xaw am rek parce que ñi ma yoroon vraiment ak li ma doon dund ak ñoom ak li ñuy dund fi mu nekk nii li ma gis fi mu nekk nii vraiment du benn moom parce que làmb boo doon dem si làmb da doon préparer. boo demee bay dugg si làmb aussi. am na yu bari yoo xamante ni war nga ko wax balaa ngay dugg si biir làmb ji leemu làmb ji. loolu la géwél bu mag doon def. waaw boo duggee aussi. vraiment ñi seetaan si làmb ji war nañ mun a xam ne kii di teg nii. si diw la jógee. parce que boo gisee may wax loolu. man sam def ma mosoon a wax ne boo duggatee si làmb. tegal li ma doon teg ba ñëpp xam ne kii di teg nii doomu Momadou Sène la booy foo nga doog a foo. te loolu laa dundee ba nii la duudu di jël ndënd yi ci sumay loxo. kon maanaam su ma la déggee bala ñuy xuusal ci biir loolu géwél bi nga xam ne maanaam jox nañ ko engagement làmp mm-hmm. yaa ngi dégg mu war a préparer pour for ay sabaram ci biir port moomu naka la ko naka la ko war a préparer ba pare. waaw ah, si biir port mi waaw bu njëkk de moom am na lu ñu doon foore sañuy suñuy sabar moom. Mm-hmm. parce que ñëpp bokk ñu yem. Mm-hmm. di nga jàkkaarloog sa morom. door benn galan sax ndend xaar waaw yooyu yëpp aussi lu jar soorale la parce que ñun suñuy sabar dañoo am waa papa euh, géwél buy dem ci làmb ni comme li nga ko waxee am na lu muy préparé ay sabaram yaakaar naa du diwtiir rek yaa mooy nekk ci biir li nga xam ne mooy euh, sabar yi euh, comme ni nga ko waxee nga ne sa papa sam papa li ma fekkee muy def mhm. waaw ndend yi dañoo amoon ay bagages parce que ñëpp ñu bokk. di nga taseeg nit. laal sa ndënd mu bon kale laal mu bon te bu boobaa sa programme dootul dem. mais ndend yi dañoo amoon bagage spécial. yoo xamante ni heure booy génn. waaw bagage yooyu di nga ko dundal ndënd yi. waaw ba boo génnee aussi ni ngay génneeg say sabar noonu ngay ñib seg say sabar. mais bagage yooyu ay tour la wala wala wala wala wala ay xar nga fuufa kese lay dootu no pas ay tour sax pas ay tour sax am nañ ay tour nag. parce que garab gi nga jàkkaar lool nii. Mhm. garab gi nga jàkkaar lool nii ay tuur la kii mooy suñu tuur. si dem si si dem si. Mhm. man mii di wax ak yow nii bu ma jógoon léegi góor si benn bànqaas. Mhm. amoon na suñu wax mun na ñàkk a waaw kii suñu tuur la kii mooy geeraan. waaw ñu bari xam nañ dañuy dégg geeraan. kii mooy geeraan mais la la doon dem seen den yi aussi bokkul ak problème mu tuur moom seen bagage lañ yoroon spécial ni nga doon toppatoo sa bopp noonu nga doon toppatoo den yi waaw noonu bu ñëwee ci biir loolu itam euh, yaakaar naa géwél bu dee salaamaaleykum ci géew wala ci dëkk euh, am na nu mu war a léemoo de même ci sabar bi waaw balaa ngay dugg si dëkk sax da ngay boo demee ba jub dëkk bi bu dee saret nga dugg dinga nga wàcc nga lemu bu dee oto la di nga wàcc lemu balaa ngay dugg te boo duggee aussi jàmm rek nga am loolu de la fekkoon suñuy euh, bàyyi di dundu bi ñuy ànd ak ñoom aussi loolu lañ ñu doon woon te loolu lañ doon demee aussi waaw te gën naa nag fii ma nekk nii ba nii la duudu jël wax dëgg yàlla mosuma am benn gàllankoor du problème mu feebar du leneen mosuma dem si dëkk mosuma yóbbu booy aussi am problème wax dëgg yàlla mais lu may loolu waaw topp waajur rek topp suma waajur rek jaamu ko tarbiyu ko lépp loo xamante ni mun na ma yóbbu ëllëg aussi duma si nopp dara def ma koy jox waaw ba ni muy làqu wax dëgg yàlla amuñu woon benn problème xolam ni glace la doon mel si man ba keroog ba muy sangu suuf si waaw moo tax lépp lu mu doon demee aussi jox na ma ko moom laa doon demee nii may wax ak nii sax bu ma waxee ak yow booy ñu ngi nii toog mais man xaw ma gàllaaj noonu non xaw ma galaaj wax dëgg yàlla galaaj moom li ma koy jëfandikoo bariwul xëy na mun na wax ne boo demee bay dugg si dekk mun nga wax lii ak lii def lii ak lii boo demee ba commencé teg aussi mun nga def lii ak lii mais nag wax dëgg yàlla su may rawan daal xaw ñoo ànd pour ma takk galaaj ci suma yaram ba nii ma toog ak yow nii di wax ak yow dund naa nag si aar bi ba nii may wax ak yow nii noo mosul takk mosul yegg suma yaram wax dëgg yàlla man daal euh, su may waajur daal laa toppoon bu may dem dinaa ko ne maa ngi dem. Mhm. demal te ñëw dinaa dem si jàmm aussi ñëw fekk ko. Mhm. loolu moo ne woon suma galaaj. Mhm. mosuma génn aussi te taggu ma ko. mais heure bu ma ko tagoo. demal te ñëw. dinaa dem ñëw fekk si ko. te bu ma doxee deux pas aussi mu ne ma ba ma ñëw. mu ne abul mos a xeex. bul mos a xeex bul mos a xeex boobu nag dama ko ko may ba bésu tey bam ma koy wax ba léegi. amul doomu adama bu ma mos a parce que li tax mooy. def ma woon ne làmb dafa bari bagage làmb dafa diis mun nañ ko sos si géwél bi mun nañ ko sos si mbor yi mun nañ ko sos si seetaankat yi moo tax boo demee si làmb aussi lu la doomu adama teg aussi muñal ba ñibbi si si kër gi mais bul moo sa xeex te loolu laa dund aussi loolu laa lam ma doon wax loolu laa ko defal ba nii ma bàyyi nii du du jël loolu laa dundal ak loolu laa dund ak sama papa daal waaw waa ci biir loolu tey ci biir ngéwél la ñuy des ba léegi euh, yaakaar naa di nga jóge ci réew dem ci réew moo xam ne si da ngay fekki sa moroom mu buur géwél mm-hmm. dem fekk ko fa mu def ay bagaasam boo xam ne yow li ngay tëgg du romb fi nga nekk mm-hmm. est-ce loolu mos na dal suñu papa Ibou Sène non loolu mosumaa dal loolu mosumaa dal moom wax dëgg yàlla maa dal amul dekk bu ma mos dem moom ñib si ñu ne ma Ibou Sène tegut mosul am dekk yëpp dama doon teg dekk yëpp dama leen doon teg benn noonu la booyi màgg ku si nekk jël sa dekk mais mosu may dugg si dekk aussi am lu may ragal wala ma am lu may tiit te la ma doon def moom laa fay def genn aussi mosu ma dem si dekk daal bon maanaam ñu def ma loo xamante nii mun na ma yàqal teg wala ma teg benn nit mun ta dégg li may teg mosul am benn may bàyyi teg mosul am waaw mais ci biir loolu bu fekkee dal na géwél bi hmm? yan bagage la war a mën a jël ba nga xam ne war na ko mën a laal ci ndënd yi ba soow bi génn waaw loolu aussi secret la rek loolu secret la rek parce que vraiment même bu dul sax tëggkat bi fecckat bi sax heure booy tëgg fecckat bi dem ba mu leer na fecckat bi dañ ko téye am na loo xamante ni boo ko jëlee si ndënd bi jox ko ko mu sex ko keroog mu fecc benn loo tëgg keroog mu fecc ko mais nag yooyu moom wax dëgg yàlla. ay secret ay la daal newul loo xamante ni dinaa ko wejje daal. Mhm. waaw. waaw kon euh, est-ce que nit ñi ñenn ñi laay wax sax mhm. est-ce que xam nañ dëgg-dëgg lañ mooy gëddu géwél. non am na nag ñu ko xam mais am na ñu ko xamut parce que actuellement fii may wax ak yow nii mhm. fi làmb tollu tey. géwél wartoon na mun a jooy dara. mais ñun géwél dañuy jooy. parce que li tax dañuy jooy. làmb bu njëkk. sagar la woon ak ñetti téeméer ñu dem be bu ñu tegee làmb fukki junni ak juróom ñu ne làmb ja dina toj ñu dem ba si fanweer dem ba si ay quatre cent mille ay cinq cent mille ba làmb léegi boo ko tegatee boo tegul ay millions doo gis nit mais géel mu nga fa mu ne woon ba léegi parce que ñun boolewuñu te loolu aussi lu jara sooraale la lu ñu jara wax la aussi nit ñi dégg ko ñun joxuñu suñu àq suñu gëdd moom joxuñu ko parce que lamb joo teg tey 3 millions. normalement lu muy yees yees géwél ba war na mun a laal 500000. mais nag lamb joo teg 3 millions tey bëgg a wax ak géwél gi. géwél gi bu la waxee 200000 sax ngay jooy ne la tax géwél ba di la ko wax. te pourtant mbor yi. ñun li ñuy daj mbor yi duñ ko daj. parce que ñun ñoo fay jiitu ñun ñoo fay mujjee. waaw léegi yow boo ñëwee na nga tegal mbër yi trois millions cinq millions léegi gel bi koy teg si yéene ko sax cent cinquante mille yu mot wala deux cent mille loolu aussi lu ñu jar a wax la loolu moom lu ñu jar a wax la ba bu ñu ko sañoon tey ni mboor yi amee tànk tey CNG doomu géwél yi tëgg lamb yëpp dinañ am tànk CNG ñoo xamante ni dinañu fa taxawal parce que métti na trop métti na trop borekat boo gis boo demee këram mu ngeek alal mais ñun mënuñ am dara parce que li ko tax mooy yow munoo dem si lamb tey yobbu dix personnes wala huit personnes wala six personnes lu muy dee dee dee di nga yóbbu douze jem kaw waaw léegi ñu fay la cent cinquante mille alors nga laal avance defar say ndënd jël oto dem léegi lan moo fay des dara togg ay añ togg ay añ waaw parce que dakaar dem naa fa nag ñi ma toggal añ bariwul de dakaar bu ma fa demee man maay toggal suma bopp añ boo gisee duudu mi toog ti nii tey dakaaram munul taxaw mooy li ñuy fay moo baaxul parce que boo buggee jël oto fii fay ko soixante quinze mille ñu fay la cent cinquante mille nga fay ko soixante quinze mille wala soixante léegi nga dem bugg a res sa añ waaw mais lamb ja bu la fa mayul boo ñibsee di nga dugg si biir nag doo seedoo doo seedoo bugg a teg aussi mun ta tax nit ki di rey boppam di dem Dakar balaa caa nga yem si lamb àll fii loolu kese mooy suñu li ñuy jooytu si euh, problème mu lamb ji de ñun Gueweul moom am nañ si tolof tolof boo xamante nii bu ñu amoon ñu ñu si jàppale waaw dinañ jël moom wax dëgg yàlla sonnoon nañ trop waaw mais ci biir loolu papa Euh, yaakaar naa ne yéen euh, ku ci mel ni yow mel ni sunu papa baabu Ngom ñu di ko nuyu au passage yéen ñaar rek jàppoon naa ne bu ngeen defoon benn euh, asoc hmm, te xale yi fi nekk taxawu leen ah wax dëgg fa yàlla war ngeen mën a am baat boo xam ne si nii ci biir làmb lu ngeen wax nit ñi dañ ko def. waaw loolu vraiment yéen baabu su ma mag la nag moo suñu am benn problème de doon am làmb Dakar sax wu ma ma dem tegi ko. Mhm. mais tey jëloon nañ décision boobu maak baabu loolu noonu jëloon nañ décision maak baabu mais booy aussi ñoom ñoo neexut a jàppale parce que fii ñu toog nii tey di wax ak yow def naa fii réunion ak booyu arrondissement booyu Sénégal sax laay wax pour lii nii ñu mun ko taxawal mais vraiment boo gisee mënul taxaw duma ko nobb boo gisee mënul taxaw Maodo teggkat la Mor Ngom tëggkat la ñun ñoo fi ay mag. mais tey réunion boobu bu ñu ko defee lu mot quatre fois yoo xamante ni kenn si ñoom mënut a déggaat fii aussi. mënut a doon lu sotti. mënut a doon lu sotti te nañ waxante dëgg. ñoom buñ jàpp ne ñu ngi am li ñu bëgg mais nañ sooraale aussi doom yi ñëw ak rakk yi ñëw. parce que suñu bàyyi dafa am lu ñu liggéeyal bàyyil ñu ko fi. ñun aussi ñu liggéey pour suñuy doom suñuy doom aussi war nañ mun a liggéey pour seeni doom. mais boo gisee loolu mënul taxaw. ñoom la rek. parce que dem nañ benn teral benn commission fii ñu ne léegi lamb ju teg un million di nga fay cent cinquante mille foofu lañ déparé woon sax. agum pour ñu jàppagum ba mu dëgër. lamb ju teg un million cent mille franc di nga teg deux cent mille. ñu dund si affaire boobu ba ñoo heure bo wootee te réunion doo gis kenn. maa xam ne comme man mag la man suma bos mun naa xeex suma bos. dem nañ ba ñu invité rajo wax ba waa Sénégal yëpp dégg ñu. mais nag pour ñu taxawal ko aussi moom mooy problème ñun nag ñoom moomoo. te am nga la moomoo yeeg bay ñëw baayam dina ko yegg. mais dem nañ ba loolu mënul taxaw. ku si nekk nag demal sa bopp. loolu moo ñu gën a andil tolof tolof bii man tey làmb bu ma ko amba boo ma engagé làmb tey man ne la deux cent mille. di nga woo nit fële mu ne la cent vingt cinq mille dem tegi ko. loolu moom moo fi ne. parce que boo gisee mënul taxaw loolu moom moo fi ne. man waxaale naa lamb soixante quinze mille. jamono yu njëkk. ba ñu war ma yónnee avance. nit jóge foofu jaar si ñoom feyeku leen quarante cinq mille dem tegi làmb ja. dem tegi làmb ja kon ñun lépp ñun la. lépp ñun la amuñu ñuy jàppale nag mais mun nañ jàppale suñu bopp. parce que ñun sans ñun làmb mënul am. lamb doo dem rek teg woykat ay mbor ñëw nit ñi seetaan si te amul géwél mun ta ne mhm. mais ñun dañoo war a toog ñun géwél yi teg lamb yëpp Sénégal dañoo war a toog ñu waxtaan mhm. tënk suñuy kaddu fi ñu koy tënk buñ ko munee ñu dund si loolu buñ ko munul ku nekk yaa ngeeg sa métier te bàyyi xëccoo bi waaw te bàyyi xëccoo bi mhm. parce que kenn du lekk lu dul wërsëgam billaahi wallaahi talaay kenn du lekk lu ku dul wërsëgam mais bu ñu toogoon man ko jàpp si benn kaddu amul dara loo xamante ni mun nañ ko ñàkk mun nañ ko euh, perte si làmb ji. Mm-hmm. parce que sans ñun làmb munul am mais boo gisee mënuñu dem aussi dañoo dégoowut. Mm-hmm. déggoowuñu. Mm-hmm. parce que bu ma bañee lii su ma morom nangu ko looloo fi ne. te fekk loolu dañul mun mënuñoo ñun mënuñoo am li ñu bëgg. loolu kese ñu teree dem. mais tey buñ ko sañoon tey ñun dañ ñëwoon buñ toogee dañoo waroon am suñu récépissé. Mhm. boo xamante ni dina dem ba CNG. Mhm. lamb même ku géwél bu bokkul si récépissé bi sax boo tegee lamb dañuy dem arrêté sa lamb ñun loolu yëpp fexe nañ ko. Mhm. parce que boo gisee ñu wax loolu ñoom Maodo. ñoom moor Ngom. amul kenn ku mos a dégat si réunion fii nii mosul am. def na ñeenti réunion yoo xamante ni kenn mosu fee ñëw. te waaw ñooñu ñoo ñoo ñooy mag ñi. léegi kon affaire boobu du mun a taxaw. nañu waxante dëgg du mun a taxaw. boo gisee Mor deux ans maak moom magante wuñu ni ma def ba bàyyi noonu la Mor di def ba bàyyi. mais nag yor na ay ndendam yor na état major même bu yorul doom buy teg yor na état major. te tey bu ñëwoon tey ba affaire boobu taxaw. bu ñu wooyee Mor tey dina doon arrangement si moom parce que ay état major am dinañ jëriñu moom dina jëriñu. mais nag ñoom comme dañoo bañ. parce que dañoo bañ laa mun a wax. ñeenti yoon ñu ngi def réunion kenn si ñoom mënul ñëw kon réunion boobu affaire boobu munuñ ko tënk. looloo ñu teree dem. mais ci biir loolu euh, toll nañ jamono yoo xam ne si nii euh, temps bi dafa xaw a est-ce que du jot ngeen ubbi benn groupe whatsapp boo xam ne ci yéen ci ngeen di daje yéen ñëpp membre yëpp yaa ngi dégg ngeen organiser wu euh, ba fal seen président fal seen vice président parce que itam toll na moment boo xam ne si su ngeen bàyyee xale yi relève bi su ngeen leen bàyyee ak bagage yi toog croiser les bras hmm? yéen fi ngeen yéen sax yéen leen ni gën demin parce que yéen da ngeen daan dem seen géer ñi ñu yëkkati may la yaa ngi dégg wala nga toog sa géer woo ne la ah papa ñëwal kat kër ga nga ñëw mu yëkkati jox la mais géer ci jëm boppam dafa mel ni dafa commencé raar. Mm-hmm. booy amatuñu loolu. Mm-hmm. waaw man boo gisuma ko. waaw kon su ngeen toogee seetaan leen est-ce que du yegg foofu jot na ngeen fal li nga xam ne mooy bureau dégg nga waxtaan seen biir tënk seen benn groupe WhatsApp. waaw mais li nga wax noonu moom moo fi ne newoon sax ñun dañoo amoon suñu bureau de dañoo amoon suñu bureau bay régler suñu récépissé ñun. bureau bi dafa taxawoon man mi di wax ak yow nii man maa newoon président bi. Mm-hmm. mais dañoo dem ba groupe bi. kenn nit kese ngay dégg si groupe bi muy Ablaye Sène bulul Sessène mhm. kooku kese mooy dugg si groupe bi wax li muy wax génn mhm. te kooku naka jëkk ba ñu commencé affaire bi ba léegi mhm. moom baatam mooy balaa ma koy gem ma gis ko loolu moo ne woon baatam balaa ma koy gem ma gis ko Ablaye suñu première réunion ba fii ñu toll nii loolu la ablaay deke woon ak ñun balaa ma koy gem ma gis ko kon yéey na leen nañu yéey nañu moom vraiment parce que demoon naa ba am kontante dañuy jël réunion bi wootante si groupe bi. réunion bi jour tel la. bu ñu ñëw ku ne ñu bu ñëwee ne mille mille ñu togg suñu añ. jënd suñu attaque suñu lépp. def suñu réunion tenk lu ñuy tënk. mais dañoo dem nag ba groupe bi. kenn nangootul dugg si groupe bi. ma xam ne xëy na. Euh, man su ma gis-gis mooy euh, man bi ñuy woote boobu ñu ngi fayeeku ay cent cent yu teg. Mhm. bon léegi yow bu ñu lay fay cinquante mille si làmb. boo buggee obligé nit ki tey ne tey cent cinquante mille la ñu teg mhm. man foofu laa gis moo tax ñenn ñëpp rocceeku nangatuñu ñëw mhm. te pourtant bu ñu ñëwoon mhm. seen arrangement la uh-huh. parce que doomu adama doo ragal yow si li ngay liggéey si ngay jëriñu te lii mooy li nga xamante ni moo yoroon suñu maam yi yor suñuy bàyyi kon waruñu ko mun a sagane mais nag mu ñu bugg a waaw mu ñu bugg a rëcc moom ñun dañoo amoon suñu bureau am lépp lépp lañu amoon. bay dem pour régler suñu récépissé. mais nag kenn nangootul dugg si biir groupe bi moo tax affaire bi aussi demee noonu daal. waaw. waaw suñu jógee foofu dañuy ñëw ci euh, relève bu Ibou il faut ñu wax ci relève bi parce que yaakaar naa nag relève bi moom ñu ko xamatul bariwul muy ki nga xam ne mooy Doudou Kane Doudou Kane dañ ciy dugg jeexale nag man ak yow ca lay. tëggu démb ak tey mais il faut ñu dugg ci Doudou seen kan mooy Doudou seen Doudou Sène waaw Doudou suma doom la vraiment man maa ko yar aussi yar ko si biir ndënd yi yare ko ni ni ma sam papa yare woon aussi si biir ndënd yi parce que lii nii tey boo xoolee man dama jël ci suma loxo papa teye bon yàquma si dara aussi teye teye teye ba jur Doudou Doudou ñëw si biir ndënd yi ma teye Doudou aussi yar ko si biir ndënd yi. ñu dematee nag ba bu ma toogee si ndënd nit ñi di ma yuuxu ne na duudu ñëw kon suma jaan wàcc na dembu dembu dembu rek am na ku ñëw ne ma vraiment sa jaan wàcc na parce que si benn ngente lañ newoon jiloor mais day seetaan duudu ba ñëw na ma ibu ma ne ko ah mu ne ma sa jaan wàcc na ma ne ko ah mu ne ma ma ne ko loolu de la doomu adama di ñaan yàlla ma jëloon ci sam papa moom aussi jël na si man comme jël naa ci sam papa nag yàqu ma ko ba yëkkati teg si loxoom moom aussi nag góorgóorlu ba ni ma teyee ba teg si loxoom na góorgóorlu ba teg see tege noonu si loxo doomam. man loolu mooy suma wax ak Dudu. parce que démb woo naa ko lu bari wax naa kook moom. parce que njiit neexul. te ñi ngay àndal aussi ñu nekk say morom. doon ay xale yu ndaw. comme yow. amaan na sax am na ñoo xamante ne ñu ngi si buur groupe bi ñoom ñoo la mag. kon. li nga war a gem mooy xëy na lu yàlla tudd la ne moom mooy tegu sa kaw kon bu mu tax aussi nga mel noo warta mel man dem naa fi ba ay nit di ma naan nii nga mel ni waroo woon mel noonu waroon nga booy dox ni ñi nga xam ne kale mooy Ibou Sène te maag suuf si ñu dégaat nii ñun ñoo bokk yem man bu ma dee léegi ñu gas ba mel léegi ñu gas pax dugal ma si biir te tey am na noo xamante ni bu ma ko meloon tey te yaakaar doomu aadama yi est-ce que li ma am dinaa ko amati mënatuma ko am. parce que sans doomu aadama yi duma dem. bu ma wane doomu aadama yi nag maqaama boo xamante ni beew. dinaa dem be ku ma waroon a woo aussi pour jox ma làmb doo ma ko jox. waaw parce que dund ma loolu. mais vraiment fii ma toog nii di wax ak yow nii li may ñaan yàlla. chaque jour dama koy wax li may ñaan yàlla toog. ba gàttandu ji duudu aéroport. parce que xëy na. tudd nañ ko tuddaat ko tuddaat ko ba lu ma trois fois suma kaw te yàlla dogalu ko. mais nag yàlla mun na ko wàcce ci sumay doom. moo tax chaque jour li ma koy ñaan. mooy na góorgóorlu si li mu yor. def si fulaak fayda. fonk doomu adama yi. parce que nit ki bu lay woon nag def la fonk de. des na si yow. comme woo nañ la fonk nañ la. yow aussi comme woo dañ la fonk ba woo la. yow aussi boo demee dundal ak ñoom dundin bu rafet. nga fonk leen parce que ar art bi dafay yaatu te artiste aussi da nga war a yaa artiste newul ne lu doomu adama wax rek nga ne dina ko faj non doo dem mhm. parce que ni ñëpp bokkuñu yem parce que ñi ma woo tey. du kenn nit groupe la. mais groupe bi bokkuñu yem. ñii nii lañ mel ñale mel na le. mais ñii groupe bi am na ñoo xamante ni dinañ wax ak yow waxu nit. mais am na ñoo xamante ni seen waxu dof la ñuy yegsee. bu ñu yegsee aussi xoolal waxu nit ñi ñii wax ak yow waxu nit. nga tee ñooñu. bébbul moo sa fexe ba dund ak ñoom dundin bu ñaaw. man chaque jour loolu laa koy conseillé. te xam naa ne bu jàppee si loolu aussi. sama papa def ma doon naan. maa la jur jàngal la teg mhm. mais yaa ma upp ma xam ma si teg mhm. li la si yàlla may mayu ko si ma ne ko ah mu ne man ñeenti dëkk laa doon tëgg muy simal mhm. fim laa yaayam jiloor kon yow boo ñëwaatee nag ba teg arrondissement fi mu laa ba jëlan Ndakaaru dugg si biir ndox mi kon mun naa ne maala la jur mais yaa ma ëpp ma xama si tëgg duudu nag li ma koy ñaanal yàlla waxuma la fii senegal de mais ma toog ba dem jëli ko aéroport man loolu lay ñaan lool loolu mën yàlla def amin te bëri na itam euh, ñi nga xam ne ñu ngi naan tey ay fans Doudou Kane nañ tàllal naa leen micro ñu ne ma ah paa bi loxo bi safut mm-hmm. waaw bëri na fi paa bi loxo bi safut moom na dem toog waaw Doudou ñëw na parce que euh, Doudou man ak moom mm. dañoo bokk mais xam naa ne xamu ko mm. dañoo dajee euh, nu mu dëkku làmb yaan baas waaw lañ daje coom bi mm-hmm. biñ dajee ma taxaw di ko xool ma di ko filmer muy tëgg mm-hmm. ma ñëw ba sëgg ci noppam ma ne ko duudu mun a ma ne ko li ngay def na nga ciy yokk fulla ak fayda ak jom mm-hmm. mu ngi nii toog mm-hmm. xam naa ne war na fàtte loolu parce que la tax ma wax ko euh, fa mu yóbbu sabar yàlla ba ma yëg ci sama bopp te géwél bi daa war am fulla ci boppam am fayda mais daal dégg naa ne relève bi moom Euh, mu gër a saf euh, doom bee gën a saf euh, kaane waa doom bee gën a saf nu mu ti moo gën a saf garab gi. waaw loolu loolu mun na nekk sax temps yi jamono yi ñoo dul benn. parce que wax nga benn affaire léegi ne nga après bu ñu demee ba si kanam. léegi dinañ ñëw si lamb léegi ak lamb bu njëkk. waaw jamono yi ñoo dul benn. te foofu sax man xaw naa contre doomu adama yi si lu ñuy naan jamono yi du benn. parce que cosaan warta mun a reer. li tax ma ne la cosaan warta mun a reer mhm. cere ñu ngi koy toggee nañ ko doon toggee mhm. te pourtant cere mooy suñu cosaan mhm. mais ba tey cere nañ ko doon liggéey noonu lañ koy liggéeyee mbuum nañ ko doon toggee noonu lañ koy toggee parce que doo jël mbuum tey di def Dakar ak xamul nañ doon toggee mbuum moom lañ koy toggee ba léegi cere nañ ko doon liggéey noonu lañ koy noonu lañ koy liggéey ba léegi léegi buñ buggee jàpp ne nag jamono bi moo changé dëgg la jamono bi changé na mais li nga am da nga war a fonk li nga am da nga kaa war a man da damaa gëm cosaan billaahi wallaahi tallaahi lambo ju ma dégg te déggu ma fa dugg te déggu ma fa cosaan dinaa ñibbi parce que man loolu laa dund te man loolu la gëm man li ma am dama ko fonk parce que ñi ñuy nax nii yëpp dañoo xam ne ñun fi ñu toll ni si période bi ñu toll nii waaw ñu ngi ñu dañoo dañoo gas pax rek di ñu dugal si biir pax bi man ci suma gis-gis li ma gis la wax de parce que ñun li ñuy def dafa riche am bokkuñoo kenn billaahi wallaahi taala doomu adama bu ñu tasel mhm. te si wàllum cosaan mhm. billaahi dinañ gàddu drapeau bi yóbbu ko parce que mhm. suñu cosaan dafa riis mais nag mu ngi bugg a sànku mu ngi bugg a sànku moom mais lan mooy sauver sanku bi maanaam dañuy dellu si tëggum cosaan mi wala euh, lan la ñu war a mën a def boobu li nga xam ne mooy cosaan boobu dootul dem waaw ah, léegi bon parce que wax nga léegi ne gars yi nee nañ gune gi moo gën a saf baay ji loxo waaw ndax li ñuy tegu fi mu nekk nii. moo tax pour cosaan bi dollu si aussi dina ma xaw a jaaxal trop. waaw dina ma xaw a jaaxal trop moom. mais man du di bu dogoon su may conseil aussi man li ma sam conseil loolu laa koy conseil rek. parce que sam papa def ma ne woon boo dugee si lamb tegal ba ñëpp xam ne kale doomu Mamadou Sène la. te loolu laa ko dundal ba keroog ba muy sangu suuf si man loolu laa bëggoon du du bu mu xool woykat bul xool bu mu xool leneen. bu dugatee si làmb na tëgg làmb ba doomu adama yi nekk si làmb yëpp xam ne du mu ngi tëgg làmb. buñ demee nag ba mu guddi. bu mu ne foo mu foo man loolu bañu ma ko. mais làmb warta mun a sanku te buñ seetaanee rek làmb dina sànku. tey jii fii ma toog ak yow nii di wax ak yow nii tey dama jëngu ma ne làmb fi mu laa tey bu dee benn une heure de temps dinaa toog teg ko. tey si làmb ji. parce que li tax ma wax ko mooy. ñun déggatuñu woyu làmb. déggatuñu tëgg làmb. ñun daal làmb daal reer nañu daal. Mhm. ba ñu bari tey ñu ngi doon seetaan làmb tey. loolu ma lay lim noonu ñu déggatul tax nañu bari ñoo xamante nii ñu ngi si biir dëkk bi tey seetaanatuñu làmb. Mhm. am na ñu ñu dematul si làmb parce que li ñu dégg si lamb aussi vraiment dafa xaw a doy waar de. Mhm. làmb lañ wax waxuñu sabar. comme nag jamono bi dafa changé ba loolu il faut sabar am. mais làmb ji aussi def si war a am solo. waaw comme làmb lañ wax. waxuñu sabar nañ dem làmb ja. kon bu ñu demee na làmb am sabar bu amee itam na làmb am. man loolu laa gëm. ndeysaan sama papa Ibou Sène la bu fim laa hmm, ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi ndeysaan ndax euh, euh, yàggam fi am na solo ci njaboot gi euh, mais papa ndënd dafa riis te est-ce que mbër bi nga xam ne takk nañ ko ci làmb ba mu fiiri ba mu furi weextaal ndax ñu takk ko jàpp ko est-ce que géwél bi am na bagage yoo xam ne ci biir làmb ji bu ko ci biir ndënd mi bu ko laalee war na mën a dimbali ki nga xam ne mooy mbër boobu nga xam ne takk nañ ko ba takk bi dañ. waaw loolu de am na mais mboor yi léegi gëmatuñu loolu mais mboor ko takkoon bu njëkk. ki ko doon yooyu mooy doomu géwél bi teg làmb ji mais mboor yi léegi gëmatuñu loolu. waaw mboor yi léegi sëriñ si lañ gëm. ba ku si war a dem làmb sax sax bu la waxee ne gisuma sax yoon doo dem te pourtant mun na doon sa wërsëg. yàlla bi ñu tiim kese. lu wàcc si àdduna. yàlla moo xam nam koy doxalee. moo xam ka ko moom. sëriñ nag am na. Mhm. mais yàllaa yor lépp. Mhm. man tey bu ma doon boole tey du ma basé wu si sëriñ. Mhm. et bu ma waree dem làmb mun naa dem si sëriñ mais dinaa dem làmb ja bu dee damay daanu sax dinaa dem. parce que mun na doon su ma wërsëg. mun na doon su ma wërsëg. mais mboor bu njëkk buñ ko takkoon. de doon daw si si doomu géwél bi mu yewi ko. mais mboor yi ñoo gématul loolu. te booy yi teg aussi xaw ma ndax ñoom ñu ngeek loolu am deet mais mais loolu nag da ngeen ko war a def ci ñoom. waaw mais loolu Euh, dafa am nuñ koy defee. Mm-hmm. dafa am nuñ koy defee. Mm-hmm. parce que nag boo demee ba deseetul sa waajur dara. Mm-hmm. lépp lu mu mos a yor. dina toog ak yow ne la mu ngi nii. waaw loolu moom moo am. boo demee ba deseetul sa waajur dara. xam na ne déw mii kat teg na ma fi mu ma war a teg. teel na ma lim ma war a teel. dematuma moom mooy dem. di ko ne lii ak lii ak lii ak lii moo fi ne. bu demee aussi loolu lay deme parce que man nee naa la man mosuma tàkk galaaj mais nag sama papa dama doon naan boo dematee ba si buntu làmb. wax li ba ñeenti yoon nga diw. wax la la ba ñeenti yoon nga diw. boo duggee si làmb ja ma ko ah mu ne ma jàmm nga fay am ba keroog ba ngay génn làmb ja. waaw mais nag dafa am fu ma jaarak moom. loolu mooy problème bi. ndeysaan ñu déglu bu baax. yaakaar naa làmb moom géwél bi moo ko ñoo ko seek ak woykat bi ak bi ak woykat bi ak bëreekat bi. bërekat bi comme mën nañ ko jàpp euh, boo tëggkat bi fiiri ko euh, fecci ko est-ce que woykat bi moom itam buñ jàppee baatam tëggkat bi ki nga xam ne mooy géwél war na ko mën a mën mën na ko mën a yeewi. waaw ba tey sax loolu mun na ne ba tey loolu mun na ne parce que ki yeewi mbor war na mun a yeewi doomu woy war na mun a yeewi woykat mag ñi de loolu heure bu amoon duñ sonn du ngeen génn làmb ji sax si biir làmb ji lañ la yeewee. ba nga mel na nga war a mel. Mhm. dinañ la yewi loolu moom mu ngi fi woon. Mhm. xaw ma nag ndax nekkati na fem teet mais mu ngi fi woon. Mhm. waaw woykat de doon ñëw ñu jàpp baatam. tëggkat ba yewi ko. mboor de doon ñëw si biir làmb ñu takk ko ba mu weex tal. tëggkat ba yewi ko. loolu moom amoon na. xaw ma nag ndax géwélu léegi ñu ngeek moom am deet mais loolu moom mu ngi fi woon. ndeysaan waaw. loolu doon lu am solo euh, sunu papa lan ngay tàggatoo. waaw euh, li may tàggatoo mooy maa ngi won askanu ngewel pour ñu góorgóorlu parce que nag bu ñu waxantee dëgg làmb mu ngi bugg reer te ñiy reeral làmb yëpp si doomu gewel yi lañ ge si doomu gewel yi la waaw du si mbor yi du si woykat ya du si seetaankat ya gewel yi la parce que gewel yi ñoom ñoo changé seen teg mais mbor yi ba tey ñu ngi bore kon gewel ya ñoom ñoo changé seen teg ñoom aussi nañ góorgóorlu delloosiwaat cosaan bi kenn waxul ne doo teg ay tuus doo teg ay sabar mais cosaan defa bokk si loo xamante ni moo yor làmb cosaan boo ko tegee xeet bu ne façon xeet bu ne bu ñee mun na fecc si biir cosaan bi tubaab sax bu duggee ngay teg cosaan bi lay walaay te lay mu fecc si biir cosaan bi cosaan moo riis te cosaan bi moom lañ ñàkk fi mu nekk nii te du yoon pour ñu ñàkk ko man am na paa yu bari yoo xamante nii tey billaay ba ma bàyyee tegum làmb si lañ toog dematuñu si làmb bu ma dellu si làmb tey tey ñu seetaan si làmb parce que li ko tax mooy cosaan mooy dundal seen yaram te cosaan dafa bokk si loo xamante ni newul ñi nekk si lamb ji moom kese ñoo tax ñuy jog de cosaan li mu yor moo bari parce que nit dina nekk si biir kër tey feebar nga toll si làmb ji tey nekk si cosaan billaay wallaay talaay ba mu jog man sañ naa làmb mar faafa ko benn at nit ñi dañoo juli fajar rek gaa yi dégg su may dënd am benn paa bu jógee këram ñëw. Mhm. ne ma Ibou ma ne ko ah mu ne ma ñu feebaroon si dekk bi yëpp weer nañ. ma ne ko ah mu ne billahi al-azim ñi feebaroon yëpp weer nañ. Mhm. ne ma ndëndum fajar surtout lamb mu ne ah ma ne ko ku mu fekk si biir lal mu nga tëdd. Mhm. keroog weer nga. ni ma waa dëkk bi yëpp weer boo duggoon si biir dëkk bi tey ku fi tëddoon tey jóg nga. te loolu dafa doon dégg parce que dafa am lu ñu doon yóbbu. te li ñu doon yóbbu nag moom la ñu bugg a ñàkk fi mu nekk nii. bu ñu sooraalee ña nekk si làmb ji rek. am na ñoo xamante ni dañoo fekkee demb fekkee barke demb te ñoom ñu ngi si biir dëkk bi. même boo nekkee si làmb ji même boo naree foo aussi si teg ma. fexeel ba ña nekk si kër ga aussi dégg loo xamante ni dina seddal seen xol. man de fu ma teg. doomu adama yi bu ñu déggee ndend dina xam ne Ibou Sène ngay teg. niraw ma kenn nag niraw ma kenn galande te tey laa la koy wax nga dégg ko teg naa ba fii ma bàyyee nii teg niraw ma benn doomu géwel galan man suma gewel galan spécial la lamb ju ma teg nag boo ko tegee dinaa la ne lale man maa ko teg man seetaan naa fii télé un jour jour lundi lamb ji ñuy seetaan teguma ko mais man suma suma moom lañ teg si te moom lañ teg parce que gewel yëpp boo waxee mu ne Ibou seen gewel buy téye galan Ibou seen moom moom moom moom Sabine sabin bu dëgër. sabin bu toog bu toog. géwél yëpp géwél yëpp laa lay wax ni de képp ku soxorul iñaanuloo foo waxee Ibou seen di nga ne Ibou Sène moom moom sabin dama ko gem nag dama ko bëgg ci suma xol te yàlla tax. billaahi dama ko bëgg te yàlla tax. te ko waaw te mën ko itam antan ko moo tax booy aussi ma bëggoon ñu góorgóorlu. kenn waxul ne. du ñu laal ay tuus du ñu laal ay sabar mais nag cosaan bi buñ ko bàyyi ginnaaw parce que xorom la si biir làmb ji làmb joo tëgg te amul cosaan rek xorom ba mënul génn loolu moom moo fi ne ñu gën a góorgóorlu daal waaw kon asalaamaaleykum wa rahmatullah sunu papa Ibou Sène moo nekkoon noonu euh, déggeen kàddu yi ndeysaan ñaax nañu ñi nga xam ne ñooy ndaw ni ñaax ñi nga xam ne mooy relève bi ñaanal ñu aussi itam kon ñu di leen jox dig daje ba ci kanam